ngi leen di nuyu di rafetlu jotaay bi ndax weeru koor lañ nekk ko wax weeru koor ak jafe-jafe yi sénégalais yi nekkee maanaam wóor na ma ne am na ñu toog fii tey xamuñu nu ñuy ndogoo kon nit bu la bàyyilee këram wala bàyyil la soxlaam ñëw toog ak yow yaakaar naa ni cofeel la ak yaakaar te donc loolu maa ngi leen ci sant yéen yëpp maa ngi sant nag département bi yëpp département Bambey yëpp parce que xam naa aussi liggéey bi fi nekk ah. bu ñu bëggoon meeting

may wax ak ñoom parce que léegi ak xarala yu bees yi ak média yi loo bëgg a eggale ci message ci réew mi dina egg nu mu waree du dëgg donc ma rafetlu seen kàddu yéen ñëpp nag vraiment euh, sans exception ma rafetlu seen kàddu li tax ma koy rafetlu mooy au lieu ngeen di wax ci man sax ci réew mi ngeen doon wax parce que réew mi ñu tax a jóg te réew mi ni mu mel dafa doy waar réew mi réew mi métti na foo ko nattee weesu na ko nit ñi nag ay gor lañ ndeysaan toog di xaar yàlla di muñ rek mais ku nekk a ngi jéem ku nekk a ngi jéem ci li ko yàlla wërsëkal ci xam-xam wala ci doole wala ci pexe mais kenn fekk siw leen bi ngay wax sànq yaa ngi tudd euh, di naan fii dafa am ku nekk ci pouvoir bi waa mais moom bu dëgëroon kay yi duñ ko fekk du dëgg donc nit tamit am nga léeg-léeg ñuy ñun ñëpp ñuy xarab benn nit heure bi ñëpp ngi critiqué Macky Sall waaye Macky Sall mënul nekk fu ne mais nit ku baax da ngay ut ay xarit yu baax ak àndandoo yu baax bu ëllëgee bu dee yéen la yit lu ñu leen munti defal wala post bu ñu leen munti jox bu ngeen gëstuwul seen i commune ak seen i mbokk te kan moo leen di mun gëstu voilà donc loolu mooy jafe-jafe bi mooy njiitu réew li ko war dafa bëri mais tamit dafa am ñu muy àndal ci ay gox-goxaat ñooñu nag ñoo war a lawal li nga xam ne day nekk opportunité surtout nak ci li jëmele rew mi kanam da ngay dama dama ci tukki ni da ngay romb ay dëkk nga fekk ay jigen di liggéey 3 heures du matin di jaay 3 heures du matin di di ut luñuy suturlo bo toggé ak ñom liñ lay wax moy amuñu doole pour jaay manam joxuñ len ay financement pour ñu liggéey du dëgg limay wax kenn du ko téggi nga togg ak ñen ñu ne la ñom ay transformatrice lañ mais mënuñu produire donc nit ñi bu dee liggéey la bëgg nañ liggéey li manqué mooy ay nit yi nga xam ne dañ leen di encadrer teg leen ci yoon bi ñu leen war a teg ñu liggéey te loolu moo tumuranke ci réew mi il faut que ñu nangu ni liggéey bi du question ay infrastructure yenn investissement yi da ngay investir ci doomu Sénégal bi béykat bi utal ko pexe damay ta faral di tooñ gars yi man leen may yéen li ngeen di jëndee tracteur bu ngeen ko jëndoon ay saret ak ay fas mooy ëpp njëriñ est-ce que yaa ngi comprendre donc foofu lañ toll da ngay xam si réew nu mu mel ngir gunge ko ci nu mu mel ngeen liggéey mu am njëriñ ci réew mi jeunes yi kenn ëpp leen jom kenn man parce que li may wax toujours dama leen naan lenn rek laa leen di mun parce que loolu conseil la moo ñu gëm seen bopp parce que man it nekkoon naa jeune du dëgg bi may nekk ndaw tolloon naa ci même situation yàlla bu la wërsëgalee nga am métier nga jéem ci góorgóorlu bu dee yaa ngi jàng nga jéem ci góorgóorlu mais dafa fooy toll. daf sa day wéy am keneen ku war a teg loxo pour nga dem du donc foofu la nañuy tumuranke foofu la ndaw Sénégal tumuranke parce que bu ñu jàngee wala jàng métier amatuñu beneen perspective beneen perspective du am di nga yëkkatil sa benn projet mais doo xam sax nooy def et pourtant toog nañ fii ñu ne ci ñaari at yi def nañ quatre cent trente milliards ci ndawu Sénégal yi ñoom ñii buñ ko déggee dañuy bëgg xeex parce que quatre cent milliards kenn xam ngeen nu mu toll waaw léegi yow résultat bi kenn gisu ko kenn gisu ko loolu boo ko doon doo doon xool projet yi nekk ci biir dëkk yi nga xool ndaw yi fay jéem nga gunge leen kon jeex na bu yàgg te bu boobaa dina leen njëriñ maa ngi koy wax démb ci affaire jakarta yi bi ma koy wax loolu laa wax mais yow li li ñuy li ñuy indi ci moto fii buñ doon ut pexe pour ñu defaree ko fii sax xanaa dinañ ci am alal gu bëri ndaw booy yi dañuy jàng amatuñ pexé pour jang parce que aussi ñu ci bëri dañuy bayyi jang parce que bu par exemple fi dafa am foy yem ci walu jang bo waree dem lycée sa dëkk amul lycée bo amul njaate gi da ngay toog sa kër bo démé lycée yalla wër sa kër nga war dem université université bi ngay dem amoo fa jaati gi amoo fa néeg nga ñibbi si waat donc ñoñu tok amatuñu pexé et ils sont nombreux ils ont envie de réussir mais xolal noy outé une possibilité nga créer un rapport d'utilité entre réew mi ak jeunes yooyu parce que ñii ñooy senegal li ñuy xalaatul mooy li ñuy ñàkk ëllëg xam nga lan la ñuy ñàkk suñu doole bu demee bitim réew ñun ñoo fii néew doole. boo loon doon dégg ci tubaab bi ñu leen di naan seen population dafa sant mooy amatuñu woon doole pour liggéey ci seen i réew bu dul woon immigration bi suux nañ bu yàgg. ak li ñuy bruit bruit bruit suñu xale yi bu ñu eggee seen dëkk yi dañ leen di laaj ñi am métier ku ci am métier dañ lay rawale gaaw yóbbu la nga dem liggéey parce que amatuñu pexe. donc c'est vous dire combien on est en train de perdre mais bu ñu xàddi nañ xam ni période pour tendre justement donc dañu continuer lawal message bi ci sénégalais yi aussi liggéey bi ngeen di def ngeen def ko dans la solidarité parce que le département Bambaye est là. wax donc tey jii man mënuma ñëw dem seeti commune. yëpp ndax temps bi campagne électorale c'est normal 21 jours la 12 jours lañ donc ici, je fexe rek pour egg région bu pour ku ne ci yéen xam ni fe fen fépp laa yemale mais li ci des aussi ne responsable yi nangu ànd liggéeyandoo xam nga bu doon ay meeting mënoon naa ko defee ci chef lieu de département wala ci chef lieu de région man maa tànn ni damay wër nii Sénégal benn activité la def mooy bu ñuy ubbi campagne bi Kër Massar yaakaar naa ni fii ak bu koy tëj di noonu laa koy defee parce que meeting yi doo ci mën wax ak sénégalais yi ni mu waree te ci weeru koor ñun ay jullit lañ. moo taxaw di musique fu ne dinaan da ngay animation mais ñu gën a góorlu ñu gën a góorlu ñëpp xam nañ liy metti ci réew mi li des mooy ku nangu faj feebar bi sénégalais yi nekke jëm ci jigéen ñi jëm ci ndaw ñi jëm ci métier yi boo ko defee boo réew mi jàmm kese moo fi am ak salaam donc mais bu kenn xaddi parce que ñëpp jóg nañ heure bi ñu ngi ñu ngi déglu sénégalais yi ñu ngi déglu bu kenn foog ni kenn gagné na élection yi parce que folliwuñu dañuy tànn te nit nag buy tànn mun na far fenn sax ba jouru vote bi tànn fu ko neex dem vote ji foofu donc na ngeen continuer message bu ñu yónnee ngeen continuer di ko lawal ci population yi bu leen ci xaddi donc vous avez la chance d'avoir une équipe liggéey leen en équipe vraiment sant naa leen yéen ñëpp gërëm naa leen maa ngi nekk seen disponibilité pour la suite te nag ngeen aussi waxtaan ak jeunes yi pour que ñu bañ a foog ni seen solution du amati ci réew mi Jakarta du solution yoon la il ne faut pas être complexé quand on te dit qu'il y a une moto. Parce que y a un homme moto, ça peut-être 50 000 ou 60 000. Nous les gars, nous avons 30 000, 40 000. Quand on va Mais gor gor la donc les gars, donc vous êtes L'avenir vous appartient. Il faut que vous gagnez, que vous il faut que vous gagnez. Mais derrière vous, n'importe qui amna ay kilifa yi nga xamne buma len waxe fuñ jaar gis nga da il faut que après ñu waxtaan ak sénégalais ne len mbiri ni la démé nit yewu na tay nek ci fukki milliardaire yu gëna am doole ci réew mi bu muy tambali chauffeur journalier la won bëgguma tuddu ay tour chauffeur journalier la won est ce que ngi dégg kenn ki boutique mbag la commencé donc lo gis rek yoon la sun borom nak bo farlo ci li nga nek mu fekk ci la donc nañ ko gëm ñu dem étape par étape bu kenn yakamti ñu liggéey pour li war mais li war gouvernement moom bu suñu borom mayee ñu falu ñun dinañ ko def pour que ñëpp am opportunité mun liggéey tedd donc sant naa leen ma leen di sant bu baax nag donc di leen dénk nag suñu coalition bi fii ci Bambey waaw dimbali leen ñu.